Qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci Eh bien, dans mon pays, le Sénégal, le président dictateur Macky Sall s'est permis de mettre en prison de citoyens parce qu'ils ont osé distribuer ces flyers qui dénoncent la hausse exhaustive de l'électricité. Lolo face à la dictature, la résistance s'impose. Le collectif Arlington du Tolentinac, cette destruction de flyers demain, 22 janvier, fait comme dañoo ne fépp nag man fi ci Nice damay distribuer sama ay flyers may tax may wax sister Adja Sadio Seck sista Fatima Mbengue Tata Fatou Sow suñu frère Abdou Karim Gueye suñu frère Ben Talib Sow Christian Faustin ma len di wax ni bu ngeen demé nee suñu càmmiñ Marie Sagna Ousmane Seck Leuz Teftec nañu taaxi lu rek li ngeen ñu ngi tak seen sœur seen i càmm ñu yeew dàll yi ñu ñëw libéré leen ci prise d'otage bi ñu nekk Macky Sall courant bi di nga ko wàññi am deer Macky Sall réew mi da nga donu wala dañ la ka Sista Fatou Camara bu londo big respect à toi dama face à la dictature la résistance partout